askan wi yeewoo nag ci diwaanu Kahone ñu ngi sant bu baax a baax kii di njaay rax ma ci ndimbal li nga xam ni ni saa su ne su gàmmu jotee rek da koy def jëmale ko ci ñoom ñoom jàpp nañ sax ak réew mi ni mu méttee Ndiaye Rahma di ko def duñ def rek lu dul di ko ñaanal. en tant que gàmmu gi ndóol gi métti ci dëkk ba bëgg a dee moom Ndiaye Rahma daal di dajale fa ay nit i nit teg fi ñiin fukki mbana di ko séddale ay doomu aadama miskin yàlla yi am na ñi nga xamante ne dañ ko yeb ci oto yëpp xale yaa ngi noonu di dem. ku ñu romb jox la nga lekk ak fu réew mu toll moon njaay chaque année mi ngi koy def li mu def nii nekkul gàmmu rek la koy def di Ndiaye Rahma sax dikkaat na ci gannaaw yi nga xamante ni nii jëloon na ko ci diwaanu Kaolack ba mu ko respecté ba noppi. moom jàpp na ni sax ndimbal li dafa nekk li ko war te jox yemul sax ci askanu ko woon rek mais waa Kaolack gépp la rawatina waa Medina Baye. di wax rek ne dugg nañ ci gàmmu alhamdulilah dox nañ. lépp li nga xam ne jëloon nañ ko comme engagement wax naa ne ne fii ñu taxaw tey def nañ ko à cent amul lenn loo xam ne digga woon nañ ko wala waxoon nañ ko ci gàmm ca defuñu ko moo xam ci kilifa yi la moo xam ci population bi la moo xam ku mën a doon. ca wàll politique tamit kii di Ndiaye Rahma dikkaat na ci bu waax baax en tant que coordinateur communal moom jàpp na kii di Macky Sall nag ci diwaanu Kaolack moom dafay war def li nga xam te mooy ndëpp national. Euh, moom laaj na ay jubbanti. laaj na ay jekk-jekkal laaj na itam ay waxtaan parce que politique dafay toll foo xam ne du nekkati affaire yi mohamed ndiaye non affaire bi affaire askan bi la affaire yi nit ñi ànd ak ñun la affaire bi nit ñi topp ñi ñuy topp la ci nekk ay kilifa nekk fi kaolack depuis 2013 ñu nekk di liggéey ñoo ñooñu itam wax dëgg yàlla dafay jaadu ñu bàyyi leen xel dafay jaadu ñu xam ne ñi ci terrain bi. ñàkk bi nga xam te ne ñàkk na koo teew ci li nga xam te ne mooy cérémonie officielle bi gannaaw bi nga xam te ne ministre bi Antoine Félix Diome ñëw na fa ak yeneen ministre yi moom jàpp na ne ministre bi mission la fi doxti woon te moom tamit en tant que responsable ay mission am la nekkoon. waaw loolu li ma ciy tontu mooy ministre de l'intérieur na Kaolack dox mission. Mouhamed Ndiaye aussi mi ngi woon Kaolack di dox mission. ci njeexal yi kàddoom nag kii di rax ma eh, dikkaat na ci li nga xam te ni mooy responsabilité politique yi nga xam te ni am na ko ci diwaanu Kaolack donte ni sax am na ñenn ñi koy ŋàññ. waaye jàpp na loolee sax dara nekku ca ndax kenn ku nekk si ñoom say responsabilité rek ngay dox ci diwaanu Kaolack.